Euh, ñu ëpp si ñoom sauf euh, Walfatri, 2S ak la RTS nga xam ne kenn boolewu leen si li nga xam ne moo nekk kii ñoom ñoo observé wut li nga xam ne nekk sa euh, journée sans presse naka nga observé journée sans presse bi au Sénégal am na aussi ñu naan li nga xam ne nekk journée sans presse bi au Sénégal boo ko gisee loolu dafay renseigner aussi si niveau de la démocratie bi nga xam ne am ci dëkk bi. bon. Mhm. journée sans presse daal échec la. yaa ngi dégg. Mhm. li tax mu nekk échec. nekkoo fi de yaa ngi ci sa téléphone bi. ma ne journée sans préfet maa ngi mhm. li tax mu nekk échec. Mhm. mooy ñaar. Mm. amul impact ci information bi ci réew mi. Mm. léegi nag li tax amul impact ci information bi ci réew mi mooy sénégalais yi ñoo déglootul presse bi njàpp. Ah, anka sénégalais yi déglootuñ leen sénégalais yi suivretuñ leen amatuñ crédibilité aux yeux des sénégalais mm-hmm. li tax sénégalais yi dañ nekk di dund dund jaxal na ma maam safara ci kaw suuf jaxal bi di tegi clip ak i sabar ak i métier ñuy dóor booy yi bal ci mbedd bi ñuy dee presse bi na dara xewut mm. booy yi di génn di xeex démocratie presque na ay infiltré lañ ay terroristes yu jógee MFDC ak des groupes djihadistes. Mhm. presse boobu dem ba tàmmal sénégalais di wax muy dañ. Mhm. yow de mars deux mille vingt et un juin deux mille vingt trois njàpp ñaata mbir la presse bi wax muy dëgg ci opposition bi da nga koy compter. Mhm. presse jàpp na fi ab imam peindre ko comme benn Ben Laden muy imam Aliou Ndao yàlla na yàlla yàlla na suuf. woyof ci kaw woyof ci kaw presse amee lañ ko àq. c'est vrai lu ne ñu sas ko lu ne ñu jiin ko ko anamu tey furaax presse boobu sénégalais yi dem ba identifier tuuti seen boobu léegi nag presse boobu soxla sénégalais yi ne leen kaay leen ñu ñun ni ngi bëgg a dee dañuy arrêté ngir yéen ngeen yëg suñu problème ngir yéen ngeen mën ñu dimbali sénégalais yi bañ. Mm. déjà ñoom dañ def erreur stratégique mooy arme bi gën a foor mm. moom lañu ñu génne tey maanaam effet bi jeex na xam nga yow yow ñuy xeex mën a yow. prime nga génne sa arme bi ëpp doole perte nga guerre mooy bi acte bi gën a diis ci buñ mën a def moom lañ def tey te amul impact. est ce que nekkul dañoo dem ba ñu sës ci miir bi aussi Cheikh Ousmane xaaral ma rek sësuñ leen ci miir bi danaa ñëw léegi nag. qu'est-ce qui se passe. Mhm. presse bi vrai problème am du problème ko du problème mu impôt bi dañ jàpp. xam nga mhm. luy problème presse. Mhm. robinet yi la bas tëj. convention yi mooy problème bu presse dañuy xoola dañuy mbubboo impo gi rek impo bi sonalu leen convention yi ñu annulé moo leen metti ah oui ah oui. kon instant yi am na presse yoo xam ne fu mu toll nii ñu euh, ñu ngi. bëgg ah wax ji yëpp du impo bi convention yi ñu tëdd la robinet yi la bas ak yi nga xam ni convention non officielle la woon. mooy mm. danga daan jot. Mm. mooy ñu bokkoon groupe whatsapp bi daan bind une bi à une. mooy ñi nga xam ne waa ji. moo leen fanaanoo suba bind leen yéen ñëpp nàngam ñu yeewu ñoom ñëpp titre même une bi presque boobu ñooy sukuraat robine yi ñu tëj moo leen metti léegi nag une entreprise bu mënul dund lu dul ci sarax na tëj bu dee entreprise nga danay liggéey di fay ay nit te mënul dund lu dul sarax tëjal. amul modèle économique. nañ tëj léegi nag beneen bi mooy Amadou baax mhm. mhm. ak opposition bii. sen loxo que ma ko ci parce que il faut vraiment que l'on parle de amadouba ak visite mi si euh, foyer ah, religieux ak faa ngi euh, si euh, biir communication au niveau du palais mais cher Ousmane par rapport à presse bi parce que sànq maanaam la am na trois télévisions je vais même dire parce que RTS moom kenn du ko manque de soutien au niveau du corporation. je vais pas dire manque de soutien dañoo gis une presse divisée parce que sax gis neen fu mu toll nii euh, Bougane wax na kii di euh, aussi. il a répondu à ces euh, attaques. waaw Bougane moom li mu def mooy li arabe bi wax rek li nga am rek nga yóbbu marché Bougane li am mooy manipuler nit muy attaquer ay nit ci plateau moo tax mu jàpp ni ñëpp moom la ñuy def moo tax Moustapha Diop tontu ko li mu am rek la yóbbu marché. Hmm. nit ki li nga am arabe yee ko mu ne nit ki seetu la bu taxawee ni mel. bu xoolee hmm. seetu loolu lay gis loolu benn la beneen bi. pap Alé Niang fi nekkon ci lalu sukarat presse bi gis nga len woon ñu solidaire ci lalu sukarat am nañu non solidaire. wax xam nga way bu ñëpp yemee am ñu ngeen seen ci presse la ensemble bi eh, juk tay eh, yaa ma ma mënu ñoo yam waaw legi groupe bi juk tay naan dañay boy ko boycotté xam nga problème bi. Mm. presse amul problème da ak nguur gi. jàpp mm, xam nga mm. ñu am problème ak nguur gi. les patrons de presse. lobby bi nga xamni ni ñoo téye en otage presse sénégalaise te ñoñu mooy ñi misé woon ci Amadou Ba way gañe bàyyil xel presse bi misé woon ci Amadou Ba ay mo am problème existe subvenir à leurs besoins mm. légui presse boobu kan moo ko doon financé initiative yi presse bobu décidé mm-hmm. kan mo nek ci ginaaw ndax presse bi dafa am luñu jot ngir def journée sans presse sax parce que xam nga journée sans presse am na international waye tubaab bi moom ñu fonk impôt lañ buñ né lutax produire produit roo ñu né dañ ñu fayloo impôt ñu bañ tuba bi duñ leen faal. ndax tubaab impo impôt dafa sacré ci ñoom. Il y a la presse internationale qui a. fait qui en parle bien sûr moy li ma la tole la xoolal bu mu la bett sax ñu prolonger ko dafa am loxo politique bu ci nekk ah ndaje gi da fay gis mamour ibrakat bu Amadou Ba di dem tourner mu and ak mom lolu kañ euh, bu mu la hmm presse bi lii kese la dañuy politique. mais cher Soumane. certes presse bi fay impôt mais aussi est-ce que mënuñ see aussi une volonté manifeste euh, du gouvernement bëgg vraiment euh, rey. assainir euh, reyut non reyut dafa bëgg assainir xam nga gouvernement bi lan la parce que yi façon yii de doon fa am mais il y avait toujours des discussions tey dit au lieu vraiment dem ci rapport de force bi est-ce que vous loon toog ci benn table. waxtaanee li nga xam ne moo nekk. parce que boobu presse may leen moratoire nga xam ñu fay parce que boobu presse état la woon état ak presse bi. état la ak opposition. léegi ñun léegi ñun journaliste yi ñooy opposition. ñi journaliste yi grève ñooy opposition réew mi. non moi je suis ah, mun nga bañ a dàkk waaye man li ma lay ax nii du dende guerre par procuration la waa ji musta xeex xeexam yëpp dañ ca xay defal. Hmm.

Amadou Ba moo nekk di manipuler la presse mais euh, Amadou Ba loxo ci agitation ça c'est une insulte pour la presse La hein, ah, presse bi insulte yow yow presse bi ils sont à la solde Amadou Ba Amadou Ba c'est l'ami des patrons de presse loolu do secret de polichinelle ci réew mi loolu ñëpp xam mm-hmm. nañ ko la preuve xoolal nañ jaay woon campagne am gi mm. xam nga <laughs> Nous de da des laaj nañu conformé wu nañ fexé fay impôt yon na pat ci gi ak a jaxase ñi genn doon wax ni dañ doon wax rek ngir mm-hmm. ah, ci Ba avoué ne sen la il travaille pour lui même chose point D'accord, donc man su ma la suivre dafa am presse certaine presse boo xam ne. li ma boo ma suivre li xew mooy <laughs> dafa am presse boo xam ne opposition bi amagul fitu opposé moo nekk ci ginnaaw di leen xam. d' accord léegi man su ma la suivre dafa am presse boo xam ne si opposition bi la nekk euh, manipulé par Amadou Ba. Mhm. mais beneen presse bi beneen côté aussi mun na am ku ne la euh, ñun aussi on a remarqué il y a une certaine presse boo xam ne si seen ligne éditoriale on peut dire que ñoom. qu'ils sont manipulés par Pastef. Euh, je vais pas dire qu'ils sont manipulés. par, le pouvoir par, par le Pastef mais seen ligne éditoriale da ngay gis ne am penchant euh, si li nga xam ne moo le Pastef. Mm. donc tey jii lan moo war par rapport ak position journaliste yi ñoom ak ñi nga xam ne moo aussi euh, ces hommes politiques. parce que fii neutralité. waaw waaw moom euh, nekk ci dëgg xaaral ma ñëw rek nekk ci dëgg. xam nga dëgg moom. Mhm. bu ci Pastef nekkee nga nekk ak moom. Mhm. bu ci Amadou Ba nekkee nga nekk ak moom. ku ci Ablaye Wade nekkee nga nekk ak moom mooy li Walf xoolal Walf. Mm. je me rappelle Sidi dañ ne woon noonu Ablaye Wade la Walf noonu Ablaye Wade la du toj nañ fi Walfadjri. Mm. lakk nañ fi Walfadjri fuñ mujjee. ñu ko mm. doon lakk ñëwaat di ko defaan Macky Sall. je me rappelle bi ñuy toj Walfadjri xam kan la yebaloon. Mm-hmm. Alioune Badara Cissé yàlla na ko yàlla yërëm ak Mbaye Ndiaye. ñu ñëw tagg si Lamine wax ay éloge Macky bi ñu bëggee dàq élection yi Walf la ñëw toog na il est hors de question ñu reporter élection yi. Mm-hmm. Macky moomu moo pare donc yow nit ki nekkal ci dëgg homme politique yi ñooy changé yow nekkal ci dëgg rek ci sa logique mooy man tey jàpp naa ne ci dëgg laa ne Pastef nekkoon ci dëgg dëgg gi méngoo bu Pastef génne dëgg man man man ma resté ci sama dëgg gi rek suba Amadou Ba buñ ko doon def li nu def sunk ma am taxawaay gi ma amoon ci bi may defaanu Sonko man dëgg laay waxal hmm. dëgg gi bu féete ak Pastef wala laayal xamdu bu féetewoo ak dimba jox wala laa alhamdu waaye nag pour mu féete ak dimba jox moo doon ndax dimba jox dimbali jox mooy waa jooju rek dafa nekkul ci dëgg rek ba <laughs> dimbali jox moom du dox ci dëgg mukk Cheikh Ousmane euh, Birahim Seck